noo gisee te théâtre démb par rapport ak théâtre tey. ah théâtre démb par rapport ak bu tey bi tamit li si nekk boobu temps ñun scène bi la ñu xamoon boobu temps amul télévision téléfilm yi tey mooy théâtre tey bi moom moo fi indi nit ñi gën a bari toog ci salon caméra wër la comprendre nga lu ma te nangoo dem def ay atelier parce que dafa laaj formation du affaire bi xaalis walla feeñ télé nii rek dëgg-dëgg du loolu aar bi. da nga koy bëgg mu nekk ci yow amour nga am amuur bi d'accord am na xaa business la am na xaalis mais tamit dangay dem jàng. yéen est li ngeen daan daj xale yi ñu ngi koy daj tey ci théâtre. Euh, ah la ñu daj day xale yi dajuñu ko de parce que léegi dañ ñëw fekk lépp sur le plat caméra yaa ngi ni télévision yi bari na internet bi ak yooyu yëpp ñoom ñu fekk ko fi ñun bi ñuy ñëw benn rek dañu amoon ORTS. te boobu ñu bari amuñu si accès boobu temps sax soo demee théâtre ñu ne doomu band bi wala mbandakat bi mais tey ba ñu demee ba yaatal ko ni mais sant yàlla la mais nag li ma leen di conseiller mais les jeunes là ñu dem def formation ñi si jàng école dem ba am ki ñu jéem a dem dugg école des arts mais ñu mel ni ah, ah, ah, Matar Diouf a ngi fi Ibrahima mbay soppe Makodou euh, ak Kader Picc ñu nii mais ñooñu soo leen jegee mais sincèrement, nous devons faire des ateliers. Nous avons des jeunes qui ont fait des ateliers. Nous devons faire des ateliers. Mais nous sommes contents. Parce que nous devons faire des ateliers. Nous devons fait des formations. Donc nous devons fait des ateliers. Toujours, nous avons fait des écoles. Nous devons fait des respecter. Parce que nous devons faire des écoles des arts pendant des années. Nous devons faire des ateliers. Nous avons fait des ateliers. Nous avons fait des ateliers. mais ñoom dañu jàngi moo tax dama leen jege woon ay nouveau toucan ay gars yooyu yëpp dama leen jege woon moo tax man li ma ci am ci technique yooyu yëpp si ñooñu laa ko jëlee. lan nga sentir tey bi nga yëgaatee ci kaw seen. non loolu mënuma la ko wax euh, dafa neex neex kontaan contact beeg public bi direct loolu jar na lu ne waaye lii na sax waay waaye lii na sax waay ngeen di ñëw yéen tamit parce que euh, di ngeen ubbi affaire bi. parce que solo ni ñew ñu leen koy nangul ngeen di wax ngeen di laaj ñu leen di tontu mais fay bax day bax lool man duma tay ben journaliste wala ben radio, wala ben télé mais l'essentiel nañu wax rek di deug dal waaw mais tay contane na trop tay dafa melni ma maa ay 400 milliards barke Serigne Touba billahi wallahi barke Serigne afé Mbacké bima gëm dafa melni ma maa ay milliards te ci benn séquence boobu théâtre amul rôle bu ndaw teyaat amul rol bu ndaw comme cinéma su fekkee rôle bu ndaw boobu mun na génn message bi rek alhamdulilah defe ko mu jeex kon nag euh, ak car rapide na yàlla yokk seen xéewal ba ngeen di doon ay ay TGV waaye ngeen doon TGV waaw daa jëfe te yokk ba yëg